Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre du 7 septembre national qui a été organisé par les patriotes, mais à qui nous avons volé l'idée. Donc, mais par contre, nous, y avons ajouté notre touche personnelle, à savoir, on, l'a appelé Baïti au Tank. Donc c'est pourquoi nous avons juste nettoyé ce qui est devant le cafétéria et l'allée aussi. Donc c'est juste une idée. On s'est dit que c'est une très bonne idée, c'est une très belle idée. Pourquoi ne pas prendre l'initiative En profiter aussi pour euh, embellir et rendre propre aussi notre quartier, c'est tout. Bon, on a fait ça à l'improviste, donc on n'a pas eu l'occasion d'en parler en profondeur. Par contre, ce qui a été prévu, c'est d'organiser un reboisement. Celui qui devrait amener les plantes s'est absenté, mais c'est sûr qu'il va venir d'ici peut-être 19 h Ah oui, donc tout, part d'une sensibilisation, comme vous l'avez dit. Donc nous appelons par exemple à tous ceux qui tiennent des commerces au bord de la route. Imaginez ce que nous avons fait si tous les commerces avaient fait pareil. Je pense bien que d'ici la rue nationale ou bien d'ici l'hôpital serait, serait propre. Donc nous appelons à tous ceux qui tiennent des commerces au bord de la route de nettoyer ne serait-ce que de leur commerce jusqu'à la route qui est devant, qui est devant, devant eux. Donc euh, c'est ça que nous, nous, allons lancer. C'est un appel qu'on lance à tous les jeunes d'abord, parce que c'est un, un, truc des jeunes de, se lever sous le soleil et de travailler pour son, pour son quartier. Donc nous lançons un appel aux jeunes des quartiers, mais aussi à ceux qui tiennent les commerces au bord de la route, comme je l'ai dit. Qu'ils tiennent ses promesses, je pense que c'est un bon début. Le fait de tenir ses promesses, donc comme ils ont l'habitude de le dire, l'Union pour beaucoup, Donc euh, dès qu'il y a une égale répartition des biens,

koñ bi kanam waaw moo tax ñu jaayante génn ci ci koor gi ni mu méttee ni nga koor gi ni mu méttee ak bi ñu ko defee nii naaj bi tàng booy génn jaayante nettoyé suñu koñ te lii nag dañoo bëgg muy wéy maanaam dañoo sàkk muy wéy sàkku ñu ma loo xamante ni tey lañ koy def rek mu yem tey dañoo bëgg chaque jour wala chaque deux jours wala trois jours wala semaine ñu génn ñu ñëpp ñu jeunesse bi defar suñu koñ dugaat toog suñu ruq waa ci la bokk fekkee ñu ci boole rek la waaw fekkee moo ñu boole affaire bi maanaam daa mujj maanaam lu neexee kaw day neex suuf ndax Sonko ci boppam am na ay armée yi ne ci kaw armée am na armée yi ne ci suuf ñu ne ko waa suuf yi lañ mën a ñun suuf lañ mën suuf moo waral sax ñu si di bale bale rek defar rek waaw ñu bale rek defar rek voilà loolu la nag waaw yooyu dañ koy organise rek loo gis ne rek organiser la laaj te ñun bu ñu nekkee ci koñ bi fii nekk ci kafe kafe gi gis koo xamante ni day yor benn mbuusam sànni ñu mën nañ kaa dem for tey boo ko fooree teg ko ci poubelle bi poubelle yaa ngi nii yow mi ko sànni sax yow di ko rus ndax léegi amatul affaire yi defal lii wala defal laa nit ñi ñoo war a seen bopp ñun bu ñu defaroo rek ñu leen defaroo bala ngaa jiite sangu a bale rek di nga boo fa rombee xool fii nu mu mel doo tilimal fekkee nit nga nag laa wax de boo dul nit nag dañuy woo wax ak am nañ fu la oola ni la hé li ngay def nuyu bu ko fi defati ndax ñu suñu koñ ñoo ko sécuriser ñoo ko moom fii lu leer a fi am te lu leer fi dox bale daal lañ génn rek kon ni ko Diomaye defee day bale rek koñ boo gis nag jeunes yi fa nekk waru ñoo jug defar seen koñ kenn warta taxaw naan président la ñuy xaar maanaam li nga nit bala nga kaa dimbale da ngay fekk mu fekk la ci yoon tey su ma la fekkee ci yoon Grand Mbour bi nga def hôpital taxaw nii su ma yoree sama oto jaar nii ku dem la moo neex yóbbaale waaye boo toogee ci café gi naan may si yóbbaale ma du ma la te gis ko taxaw ci tali bi ku dem rek mun nañuy